wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalli alayhi afdal salaat wa aalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني واخفض له أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفرس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بناي بناء وافيا يجرني لخيور سافيا وجل بناي بناء علمي وامل بسنة وعلمي soxna Ndeye Marieme yaa ngi fii tey ci bisub euh, commission sociale bu Touba ca kanam ñu di ko def at mu jot euh, seen loxo di dugg ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñuy ay néew ji doole noo gisee mbir moomu benn ñaareel bi mooy eh, nekk gi nga nekk ci biir tuubaa ci kanam nan nga ko yëgee. laaj nga ma lu am solo de ndax eh, lii ñuy def nii muy social day loo xam ne dara da koo féetewut kaw ndax fekk ki nga xam ne eh, néew doole sax duñ ko wax ndax ñun ñëpp ñoo waaye ki nga xam ne aajo na ko ajo woon na ko nga dem ba fekk ko fa mu nekk nga xool ko ba xam ne aajo woon na ko nga ñëw def def defin woo xam ne ah daanaka yéen ñi ko seq ak yàlla rek yéen a koy xam ndax ku ci nekk boo xoolee ne ticket bañ lay jox ñi fi toog kenn xàmmewut ku ñu war a dimbale wala ku ñu war a dimbale loolu mooy jëf ngir yàlla te itam social mooy def ngir yàlla te dëkkub Serigne Touba bi dañ fay ne war cee def suñu participation kon dañoo war a liggéey Serigne Touba ci njaboot bi fi nekk kon social bi moom day loo xam ne nii ñun fa mu ni mu demee ñun sax mënuñu koo wax ñun ni mu demee sax mënuñu ko wax ñun ndax wax dëgg yàlla moo bu ko ñëpp defoon tey dëkk bi waxee su ko ndax ñëpp dañoo gàddaay bàyyi seen lépp ngir jëm Serigne Touba ñëw ci dëkk Serigne Touba bi kon ñun ñi fi nekk ñoo war a jéem a góorlu ba fas yéene ñoom duñ sentir mukk ne ay étage lañ bàyyi ñëw ci néegu ñax wala ndax da gis ko bu jógee ci étage ñëw mbaar wala mu fab ay sëram takkale wala ay euh, basang dëkk ci te sëriñ Touba rek ko waral gis koo xam ne day xëy yor ay njabootam di war fóot boo amul fóot bis booba duñu lekk gis ko xëy yor peelam di dem te peel boobee bu amul lum gas bis booba du am lu mu doon di yooyu yëpp nag Touba ca kanam di ko gëstu yoral seen bopp jël seen oto di dugg ci dëkk bi di xam la la fa ne di leen jéem a dimbali ngir yàlla te yàlla rek tax kon social bii dañuy ñaan rek baax Sëriñ Tuubaa mi tax ñu di ko def mu téyal ko boppam jàppal ko boppam te képp ku ci dugal sëb dërëm suñu borom fayal la boppam surtout nag jigéen ñi boo xoolee rek danga xam ne jigéen ñi moom macha allah lu njëkk mos a woote ñoo cay njëkk ñoo cay mujj ñoo cay man kon nag yàlla na suñu borom fayal boppam barke Seex Mamadu Basiir waaw. Mbacke Balla wax nga ko léegi jigéen ñi. ndax euh, tey jii wax dëgg yàlla danga ngaa waroon a toog fa nga toog ñuy liggéey di la indil ndax sa maam waaye ñu gis la nga ànd ak Pastef ànd ak pas-pas gën a ëpp doole daanaka taxaw ci kanamu Touba ca kanam kon looy wax sa mbokk jigéen ñi. sa mbokk jigéen yooyu dama leen di woo rek di leen wax na leen nun ñëpp danoo bëgg a liggéey Serigne Touba te ñu bari xamuñu woon fu ñuy teg seen tànk xamuñu woon fu ñuy jaar am na ñoo xam ne daan def waaye dañ daan def xamuñu fu kon nag Touba ci kanam bi nga xam ne yàlla dogal na loo ci def da nga ci teg sa bët xam ne lii yaa ko dugaloon yaa ko defoon te lii ñuy liggéey Serigne Touba bokk nga ci te sëriñ Serigne Touba ku ne bëgg na cee liggéey waaye nag Serigne Touba moom ka koy liggéeyal moo koy tànnal boppam kon nag ndokk bi ñu sunu woon bu dimbalee tànnal nu boppam ñu mën a liggéeyal Serigne Touba kon soxna yi la ñu daan def rek raay ba ñoo ca manoon jumaay Touba lépp lu ñu mos def ñoo ci man tey jii Touba ca kanam ku ñëw da nga xam ne jigéen ñee ci man kon nag nañ doole takk suñu ndigg doole góorgóorlu fas yéene laxasaayu doon taalib Serigne Touba te suñu borom doolu noo dimbale te xéewaleen nu ba li ñu bëgg yéene ko ci dëkk Serigne Touba ñu man ko te ànd ko kilifa yi ànd ko ak mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te wër te lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne bi mu def ko nam ko bëggee dañu ànd kook moom. alhamdulilah rabil aalamiina rek sant Serigne Touba bu baax a baax sant Serigne Touba bu baax di sant euh, Touba ca kanam mbooloom sëriñ Touba mii nga xam ne ñooy mbooloom Touba ca kanam ànd liggéeyal Serigne Touba ci dëkku Serigne Touba bu sell bii. dem ba dugal ci social bii nga xam ne lépp lu waay def lu ne yaakaar naa ne social la rawatina nag bii ñuy def ci koor gi social Ramadan dimbalee loolu moom ñu ngi koy rafetlu baax baax baax. di ci sant njabootu Serigne Touba gi ñu ko àndal bu baax di sant abi bu Mbacke di ko ñaanal li mu nga xam ne moom la bëgg ci dëkku maam bi di Serigne Touba yàlla na ko eggale ñu ànd koog moom di sant mbooloo mi ak soxna yi ñu àndal ak Serigne si yëpp Serigne Mourtala mi nga xam ne moo jiite social moom Serigne Abdou Fatah taxawaayam rafet na lool moom ñi mu ko àndal ñëpp nag ñu ngi leen di sant. tey fas yéene takkunuwaat rek nag gën a dolli laxasaay fas yéene liggéeyal Serigne Touba rek ba bañ a faatu na yéex. ñu gis ne yéen a ngi fii tey ci bisub Touba ci kanam muy journée boo xam ne bii dañ koy organiser at mu jot ci weeru koor ngir dimbale néew ji doole yi nan nga gisee xalaat boobu. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla bu baax bi mu ñu ci liggéey bu mel nii muy liggéey boo nga xamante ni liggéey boo nga xamante ni bu neex la te liggéey boo xam ne ku ci bokk ku nekk war sant yàlla bu baax baax ndax ku nekk xam na ni liggéey bi lu neex yàlla la lu neex Sëriñ Tuubaa nga xam ne moomam dëkkam bi la. waaw ñu am kontaan bu baax a baax nag ci biñ bokkee ci liggéey Tuubaa ci kanam rawatina. ñu bokk ci li nga xamante ni mooy social te social moom ku nekk xam na li ci yàlla wax kon bu yàlla dogalee ñu bokk ci tey ñu amal bis bu mel nii muy journée sociale ñu amee ci kontaante nag bu baax a baax ndax ku nekk xam na ni jàppale jàppale néew ju doole ku nekk xam na ni loolu neex la waaye tamit ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sëñ Abibou Mbacke di ko ñaan yàlla yàggal ko fi lool. ak ñi nga xamante ni moom lañ àndal liggéey bi di sant tamit sëñ Mourtala mi nga xamante ni mooy suñu njiit ci social ñu ngi koy sant bu baax a baax di rafetlu nag nit ñu doxee ci Touba ci kanam te xam ne lii moom ab la bu am solo boo xamante ni képp ku ci bokk na xam ni sant yàlla war na la waaye képp koo xam ne bokk góoji tamit bay boon nga def lépp loo man ba bokk ci liggéey bi ndax day liggéey boo am solo te it bu ci ñëpp àndee def ci seen loxo dinañ dem ba lépp luñ bëgg ci Touba rek ñun deen ko ma defal suñ bopp dootu ñu ngi xaar kenn moo waral Touba ci kanam bii nag takku waaye ñëpp war nañ leen a dégg ànd ak ñoom ci li ñuy def ba nga xamante ni lépp lu ñu bëgg a taxawal ci Touba dinañ ko man lépp loo xamante ni ñoo ko fi bëgg a defal ci suñu bopp dootuñ ci xaar kenn dinañ ko man waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag di sant ñi nga xamante ni moom la ñu yàlla booleel muy waa Daaru Xaddim ñi nga xamante ni moom lañ fi àndal waaye ci njëriñ sëñ Fallou Jumaadal ak sañ jili rakam ndax euh, liggéey bi ban asee ci ñoom dañ koo jël tegaat ko ci suñuy loxo na ngeen ko ànd ak ñoom na ngeen ko ànd ak waa koñ bi yëpp ak képp koo xam ne bëgg na cee bokk ko yaatal kii ma feggoon nii soxna na koy jóob la bis bi ko sëñ bi indi ci suñuy loxo ci suñu loxo la ko teg nit ñaan waaye danoon nag bu leen ko xatal ndax liggéey bi nekkul luy xat liggéey bu ni yaatal la fépp fu ngeen xamante ni seen tànk jot na fa wala seen làmmiñ na ngeen fa dem bu ngeen ko mënu ngeen lu fa yóbbu ba ngeen dem fa dugal leen ci ndax liggéey la boo xam ne képp ku ci bokk lépp lu ci tuyaaba jum am yow ak moom a koy bokk ndax liggéey buy dem la ku nekk xam na ni Touba ca kanam moom luy dem la rawatina nag liñ dugalaat ci biir muy affaire social ak jàppalante dimbali néew ji doole yi lépp loo xamante ni lu lu lu dëkk bi lu doxal dëkk bi Touba ca kanam dugal ci loxoom moo waral ñun dugg biñ ci bugg dugg suba gun xëyet ñi ngi gën a feddali suñ laxasaay lépp loo xamante ni suñ ko defee Touba jëm ca kanam dinañ ko def lépp loo xamante ni suñ ko waxee liggéey bi dëgg dinañ ko def waaye nag maa ngi sant mbooloo mi àndal ñëpp nag ñëpp daaru xaddim lañ jógee ak sexaw ga mbusoobe ak euh, yoon daaru saam kàdd ga maanaam bu ma ko limee sax damay juum daal waaye bari na ñoo xamante ne ñu ngi jóg ànd seeg ñun ci liggéey bi biñ déggee liggéey bi mu jaar ci loo turu sëñ Abib bu mu sëriñ Fallou ñëpp dañoo kontaan ni kooku amul lenn lu muy wott ànd ko moom ndax ñoom xam nañ baax a baax lim taxawaayam ci ci ci yoonu murid waaye ñu ngi sant ñi nga xamante ñoom la ko àndal di sant sëñ Baara Mbacke bu baax a baax massification ndax ñu li ñu def nii muy wëreel di dem ci koñ yi ñoom waa waa massification jàppale nañ jàppale bu am solo ndax fu ñu dem ñoon fay suñu àndee suñu oto yi ak suñu ñoom ñooy seen i ànd ak ñun di leeral nit kon xam nga ñooñu tamit ñu jàpp ci liggéey bi la kon daal Touba ca kanam daal niñ ko gisee mooy na ci ñëpp dugal seen loxo rek bu ci ñëpp dugalee seen loxo daal incha allah rabbi léegi li am lépp liñ bëgg am lépp ci Touba ko am salaamaaleykum waa Touba ci kanam mais salaamaaleykum waa àdduna bi yëpp ak waa Touba maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar ah, jiital ci nuyoo beeg ziar gi suñu xalifa général sëñ Mountakha Mbacké mais di ñaay ziar bu baax itam sëñ Abibou Mbacké ak sëñ tàkku Mbacké ak njabootu mam borom Touba bi yëpp ah ñu ñëw fii ci commission sociale ñëw ci social muy liggéey bu am solo boo xam ne waa Touba ci kanam ñu ngi koy def ci dimbalante ak dimbale e, doomu aadama yi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw looloo waraloon suñ teewaay fii. lam lay jëkk a jox mooy euh, nga jógee euh, soxna yi nan lañ duggee ci Touba ci kanam. Ah, foofu soxna yi ñu ngi ci njiitalu sëñ Babacar Mbacke Makabaro ñu koy ziar bu baax a baax ak suñu jëwriñ sëñ Abdou Khader Diallo ak sëñ Moustapha Toy ah, foofu noonu ñu ngi góor góorlu ci liggéey bi te liggéey bi macha allah ndax social moom dafa doon loo xam ne ah, dimbalante la te dimbalante ñëpp la war loolu moo waral ñu ñu jàpp ci liggéey bi. jërëjëf soxna si ñu teew tey fii ci bisu commission sociale bu Touba ci kanam muy jàppalante leen néew ji doole yi nga bokk ci commission boobu di ci liggéey liggéey bu am bu rafet bu am maanaam macha allah euh, ñuy laaj rek bis bi tey lum lu dem ci yow. Euh, ginnaaw bi ñuy nuyoo mbokk yëpp sant sant sëriñ bi di euh, ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg solo te ñuy wax ni lu am solo la lu am solo ndax liggéeyal sëñ Touba dafa bëri ay ay ay fànn. bu sëñ Touba waxee ne nañ ko nañ liggéeyal sëñ Touba tamit ngir liggéeyal liggéeyal ko ci dëkk bi baax na lool waaye liggéeyal ko tamit ci ñi ko dëkkal ci dëkk bi mooy tamit lu am solo la tey bëri na fi ñoo xam ne soxla nañ ko donte nur na lu xaw a loo xam ne nit ñi xaw naa xaw naa tuuti ne ci bët waaye lu réeree la fa mu jëm ndax lépp luy jëm ci jëf ci mbirum sunu borom du tuuti rawatina nag ñu def ko ci weeru koor rawatina nag ñu def ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa def ko ci dëkkam kon nag ñu ngi ñaan rek mboolem ñi nga xam ne jàpp ci ñu yàlla suñu borom defal leen jàmm ak tawféex tayit it ñu xam ni lu am solo la ñu soññu ñëpp rek képp ku am sax benn kilo ceeb dend ak kenn koo xam ne mën ko ko jàppale te dëkk ak moom nga jox ko ko ndax ku ci ne am na koo dëkkal koo xam ne leer soxla soxla na ko loo loo ko mën a jàppalee ci la ko tane nga def ko te di ko def na ngir sutura. ndax tam lépp lu lépp lu ñuy def ci lu baax dañ ko def ngir sutura te sutura lu ci am solo la jërë ngeen jëf. bisu social social nag ndimbalante la ay bokki jullit ay bokki taalibe seet ci seen biir ñoo xam ne néew ji doole lañ seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ne dañuy dajale seen alal ngir jàppale leen ci nga dëkk Touba di député Touba di taalibe sëriñ Touba teewe bis bi lan la la def. Euh, ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala Euh, sant mboolem kuréel bi nga xam ne mooy Touba ci kanam te ma bokk ci euh, mbir la boo xam ne mbir mu rëy la ndax Touba ci kanam boo ko xoolee dafa am aw yoon woo xam ne daf ko jël ci Touba te mu am lu am solo mooy yoon woo xam ne mooy xool li nga xam ne dafa war ci Touba te mu doon jafe-jafe ci loo xam ne mairie moo ko war def wala état moo ko war def te xëy na def gi àggugul foofa parce que xëy na mat gi àggugul foofa ñu jël suñu responsable di ko def lu mel ni ay poste de santé lu mel ne ay ay jënd ay ambulance lu mel ne jënd ay ay jënd ay oto yoo xam ne day fay lakk muy lu am solo loolu lu am solo mais lii nag benn pàcc la ci loolu muy lu rëy ndax Touba buñ koy xool dëkku dimbalante la mais dafay baax lu mel nii waxuma la Touba ci kanam mais askan wi dañ cee war a dugal seen loxo xam ne Touba ci kanam lii muy def Touba ko defal Serigne Touba ko defal ba gisee ku man ma ci sawar mbir la boo xam ne damay wóor ne lu ma ci def ci sëñ Touba la jëm directement parce que loolu lu leer la parce que dafa am loo xam ne boo koy def mën nag tagaka tagaat mais lii loo ci def ci sëñ Touba la ndax taalibe sëñ Touba nekk ci dëkkub sëñ Touba bi nga xam ne am na ci ñoo xam ne li ma yàlla may mayu leen ko mooy mën na maa añ ba regg mën a reer ba regg mën a xëy naan kafe te lépp mi ngi ci sama biir kër am na ñoo xam ne bu nu xëyee suba seenub sewo la ñu yor dox lu mat 5 kilomètres doo ko dugg ci dëkk bii wut ab ceeb boo xam ne bu buñ ko jëlee dañ koy sebati man caa dund ay ay weer loolu am na ñoo xam ne xamuñu ne lu am ci dëkk bi loolu lu mat a ba xel la lii nag loolu lay jéem a saafara mais xëy na du yomb mais ñu ngi ciy góorgóorlu lu nu man loolu nag pour ñu man ko il dëkk bi ku ci ne sa alal sa ñaar dërëm yi nga am sa dërëm nga fexe ba ñun ñëpp ñu jël suñuy alal ñu dugal ci loolu lu am solo lay doon loo xam ne dëkk bi lañ koy defal Serigne Touba lañ koy defal ndax koo xam ne ndax dëkk bi ñett rek moo ci dëkk kenn ki dafa ñëw dafay juddoo dekk fi kenn ki koom-koom moo ko fi indi kenn ki nag ñàkk yaakaar fenn fu mu dundee moo ko fi indi mu yaakaar ne Touba bu fi ñëwee dana fi dund mais ku ci ne war nañ koo gàddul loo xam ne comme ni ko sëñ Touba waxee kuy ku ñëw rek ma gàddul la la la la nga ma soxlaa loolu nag ñu ngi ci sant Serigne Mourtala ci taxawaay bii mu taxaw lu rafet la lu neex la ñu ngi ñaan rek ñu yàgg koo fekkee parce que comme loo xam ne Serigne Mountakha day jël alalam di ci dugal ku ne murit bu ne war ngaa jël sa alal dugal murit bu nekk war ngaa jël sa alal dugal kenn wurut a xool man fii laa bokk wala faaw dafa war a dem ba Sénégal yëpp war nañ cee dugal seen alal parce que tey gis naa am na ay dëkk yoo xam ne du ñu dëkki murit ñu ngi koy roy ñu ngi naan Touba ci ah mais Touba ci kanam lee ñu def Tiwaawan ci kanam war naa am Tiwaawan ci kanam war naa am ñeneen ñi wax yeneen dëkk noonu waa Tiwaawoon waxee ne Tiwaawoon ci kanam war naa am di ko roy loolu war naa tax ñun ñu gën a góorgóorlu gën koo fonk gën koo jàpp bañ koo def ne yeneen yi fi jaar nga xam ne ay caaxaan yu ñàkk fayda moo ko moo ko moo ko yàq man bu may ñëw fii politicien la mais bu may ñëw damay dindi sama mbubb politique sànni fële wàcc ko ci bedd ma ñëw fii ngir taalibe ngir liggéeyal sëñ ko loolu nag ñëpp war nañ ko def kenn waru cee xool dara laay def da nga war a ñëw def si ko. nga teewal fi tey Abdou Lahad Ka sëñ Abdou Lahad muy meerum Touba. Eh, ci bis bi nga xam ne Touba ca kanam ñoo ko ameel muy bisu social ndimbalante ci biir ak bokk eh, nan nga gisee bis bi tey yow mi nga xam ne yaa fi teewal tey monsieur le maire. jërëjëf ngi leen di gërëm bu baax di sant di xamal ne am na nañu te lool tey eh, teew fii ci raison yu bari benn bi mooy Touba ca kanam. day mbooloo moo xam ne comme ni ko tur wi wooyee dafay jëmale dëkk bi kanam euh, ma bokk ci comme ni ci taalibe yëpp bokkee loolu jaroon na ma teew ñaareel bi ñu koy def fii ci pencum Cheikh Mamadou Moustapha may sëtub sëñ Mamadou Moustapha kon teew fi jaadu na ñetteel bi may conseil municipal euh, représenté fi également le maire loolu kon mooy ñetti teebaay yoo xam ne ci benn bu ci nekk jaroon na ma ñëw teew kon tawfeex suñu borom la e, ñu ngi ci sant bu baax a baax e, bis bu mel nii nag dama ci bég ndax dafa am solo lool ci e, lislaam am solo lool ci humanité ndax élan de solidarité la boo xam ne mënutul ñàkk ci àdduna ndax ñi nga xam ne sax duñ ay jullit sax xam nañ ni mënuñu dem sans ñuy am élan de solidarité boobu kon nag ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu rawati ñu bokk ci waa Kër Serigne kon ñun ñoo ko war a njëkk ñoo ñoo buñ ko jiite wutit kenn waruñu caa jiitu kon bu Touba ca kanam amee initiative bu mel nii di ko def loola lu ñu neex lay doon lu ñu bégte lay doon. te jàpp na dana def ay stimule pour ñeneen ñi ci des yeneen organisation ak yeneen association yi di def solidarité bu mel nii ndax ñi nga xam ne ñoo néew doole ci population bi lañ bokk ci nit ñi lañu bokk te war nañoo weer wu mel ne weeru ramadan bi ñëpp war nañ ci yëg seen bopp wara a bëgg ndax Serigne Touba ci boppam dafa fonkoon dëkk dafa fonkoon weer wi ba nga xam ne gan ba sàkkal ko xas xasida joo xam ne bind ko di ca tagg weer wi ne mooy ngën ñi mooy ngën ñi gan kon nag bu ñëwee ñu dajale ñi nga xam ne euh, ñooy ay néew ju doole ji di ay doomu aadama jóge ci dëkk bi génne ci leneen yàlla may muy seen wërsëg ñu cey jël dara di leen ko jox loola lu ñu mën a rafet lu ñu rafet lu lay doon ci c'est dans ce cadre là monsieur le maire mu envoyé ñu fii ak une forte délégation ñu ñëw doon feeñal yé feeñal yéeneem ci loolu moo tax yëkkati na lu mat tonne ceeb ak cent kilos sucre. pour participer ko ndax moom ci boppam xam ne lépp lu ñu fi def ci wàllu boobu moom moom la waroon kon nag lépp lu ñuy def moom lañu ko defal moo waroon a bëgg a ñëwal boppam waaye dafa am ci yeneen i exigence yeneen impératif yoo xam ne ñoo ko téye ba munta ñëw moo tax mu ne naa ko fi teewal pour ñëw teg loxol feeñal yéeneem rek ci ne lii ñuy def xam ne lépp lu ñuy def ci wàll googu moom loxo moo ci war a jiitu moo war a def loolu lépp. salaamaaleykum. waaleykum salaam Eh, yaa jóge njaareem ci journée Touba ci kanam bi muy journée sociale di dimbalante eh, nga ànd ak eh, waa njaareem nan nga gisee bisub tey bii. asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw ma sant yàlla julli gi Seydunaa Muhammad sangub sang yi maa ngi naan jërëjëfe borom de jëfe borom Touba jaraw la cancer xay fàllam tey gërëm sama sëriñ bu baax ba ma bàyyi ci kër ga ndax moo bàyyi ma liggéeyal sëriñ Touba bésub Touba ca kanam sant yàlla rek sant yàlla ndax euh, ku sëriñ bi baaxee rek mooy tàbbi ci liggéeyub Touba ca kanam kon ñu delloo sant yàlla bu baax a baax tey delloo sëriñ bi njukkal tey gërëm ñi ma àndal ñëpp nag te xam ne lépp ñoo ma ndax man kenn rek laa kenn mënul dara su ma demee rek ñi ma àndal la jërëjëf. waaw soxna si ba dugal soxna yi ci liggéeyub Touba ci kanam jafe na ci njaareem. waaw xaw naa jafe xawuta jafe ndax euh, sëriñ Touba garab la day am ñuy wadd ngay for am ñuy ñoo xam da leen di wit am ñoo xam da ngay gësëm ñu doog a wadd lépp nag yaay xam nooy jaare rek ba mën a am lépp noonu rek la waaye nag Touba njaaree moom day dëkkub Serigne Touba dëkkub sëriñ Touba am fukki at juróom def fa lam fa def seexal fa ñam fa seexal def fa jumaa ju mag ja njëkk faa màggale Touba.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 وآلي وصحبه سوي الصلات وكل من قدمني أو سارا فنجني واغفر له أو سارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعت حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فلينقل قلبه يا رب يا فلتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي